الحمد لله الكريم الفتاح أحمده سبحانه على نعم تتجدد بالغدو والرواح وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة بها للقلب انفصاح وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وأن نقدم لأنفسنا أعمال صالحة مباركة لتبيض وجوهنا يوم نلقاها عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن عباد الله اتقوا الله حقيقة التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى waktiru min zikril mawt mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu tedd bi moom borom bi subhanahu wa taala mi tijj bépp bunte xéewal ñu ngi koy sant di ko bàkk di tudd ab sellam moom mi dul dañ di ñu defal ay xéewal guddeeg bëccëg subaat ngoon ñu ngi seede ni amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom subhanahu wa taala te waruñu ko bokkaale ak kenn muy seede goo xame ni it mu ngi bawoo ci xol bu féex ci ragal yàlla bu sell ci topp yàlla di seede ni suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam de jaamam la dawam la mooy ki yàlla tànn ngir mu gindi xeet bi amul lenn lum ñu waroon a wax ci lu ñuy teg ci yoonu njub lu dul wax nañu ko alayhi salatu wasalaam amul lenn lu ñu war a jàngal xeet bi ci lu ñu war a soriloo yoonu sax waan lu dul jàngal nañ ko yàlla ñu ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ku topp njubam fi léeg guddi yéeg bëccëg yi ngi awante mbokk yi ñuy dénk suñu bopp di leen dénk ragal borom bi subhaanahu wa taala tey dëkkal suñu jëmm yi di jëf rek jëf du sell ngir bu ñuy jàkkaarloog suñu boroom subhanahu wa taala suñu xar kanam yi weex tàll ak leer bu ñuy jëmee biir aljanna bis bi nga xamante ni alal du fa jariñ doom du fa jariñ lu dul ku fa ñëw ak xol bu sell xol bu set wecc ci gëm yàlla bis bi nga xamee ni it képp ku fa teew lépp loo jëfoon ci kaw suuf muy lu baax wala sawaan da nga ko fekk ci sa téere jëf bis bi nga xamante ni mooy bisu naxante wa bis bi yéefar yi fii ci àdduna yàlla mu ne zuyyina lilladina kafaru alxayaata addunya wa yasxaruuna min alladina amanu desitu àdduna wii de am na ku ñu ko yàlla am na ñu ko jël di ko puukarewoo ba jàpp ni ñoom sax ñoo féete kaw képp ku nekk ci kaw suuf ngir ay pouvoir ak sañse fekk ni am na ñu leen di nax ñoo xamante ne naxante mi ngi kay ëllëg yowmal qiyaamati mooy ñi nga xamante ne ñuy saxoo rek ñoom jàmm yàlla dañ ci jàkkay di saraxe di julli ak a woor bis boobu noonu ñoom ñi leen doon reetaan fii ci kaw suuf ëllëg ñee ñoo leen di ree mbokk yi ñuy dénkaat suñu bopp di leen dénk ragal borom subhanahu wa taala ak jàpp ci diine gi nga xamante ni mooy diine islaam ak ŋoo yaanu ci buum bi nga xamante ni yàlla mu ne nañ ci ŋoo yaanu muy alquran wa'tasimu bi hablillahi jami'a wala tafarraqu dañu xam ne de yii képp koo xamante ni sàlloo nga ko ëllëg yowmal qiyaamati ca biir sawara yow sa sa sa yaram xaram na safara safara du ko lakk yàlla nañ ci yàlla boole dañuy bari mbokk yi di fàttaliku li nga xamante ni mooy almawtu muy dee te yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxoon nañu ni aksiru min dikri haadimi lazzaat dee leen bari lu ngeen di fàttaliku liy dog bànneex yi képp ku faatu rek bàyyi nga mbébét mbokk yi ci jamono yi ñu toll ci territoire u Sénégal ay imtixaanaat moo ciy am imtixaanaat mooy ay examen bisub tey bi ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci ibtidaaiya ñu koy wax phase primaire bi ñoom ñoo nekkoon doon examen ci ay fan yu néew ci kanam waa BFM ak baccalauréat ñoom la ñuy examiner mbokk yi xew-xew yi di dem ak a ñëw chaque année di ñu fi fekk ndax moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam da cee jàngalewul dara wala aha tey amul lenn loo xamante ne ci kaw suuf mi ngi fiy jaar loolu yoon sallallahu alayhi wasallam jàngale na an yéen jàng nag ay jàngat lañu war a am ci imtixaanaat awalan kii def examen waxuma pression moom waaye pression bi day yéeg ba cay waajuram kenn ku ci nekk yaa ngi naan sama doom da day def examen looy xaar ci moom ndam waajur bi ba ci waa koñ bi famille bi ñëpp képp ku sa def doom di def examen rek ñëpp xam nañ xale bi ànd ak boobu pression moom bi bisu examen mu war a toog moom kese ci numéro boo xam ne du ko bokk ak kenn ñu war koo laaj laaj yoo xamante ni ci cycle bi mu nekkoon wala ci année scolaire bi lam ci jàngoon loolu lañ koy laaj mbokk yi loolu est-ce que duñu ci teg baaraam ci ni yàlla dafa woo malaaka yi bañ ñëw mu ne inni jaa'ilun fil ardi xalifa dama wàcce war a wàccee ci kaw suuf dama bëgg a wàccee ci kaw suuf koo xamante ne mooy xalifatullahi fil ardi moom mooy représenté ci kaw suuf yàlla waxaat ni mu li mu njëkk a def mooy wa allama aadama al asmaa kullaha mu jàngal aadama ku la dénk jàngal la moom dina la examiner yàlla waxaat ni boo demee ci suuratul mulk muy tabaraka alladi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shayin qadir alladi xalaqa almawt wal xayaa yàlla mi sàkk dund ak dee mu wax ñu nag ni li yabluwakum ayyukum ahsanu amala ay li yaxtabirakum ngir mu leen di examiner ëllëg kenn ku ci nekk la nga doon jëf ca lam la dénkoon mbokk yi xale yooyu di def examen ak ñun ñii di def examen ñun ñii deful examen ñëpp ci examen lañ nekk fan la asila yi suñuy laaj di tàmbalee ñun ñi nga xamante ni yàlla mu ngi examiner ñu ngi tàmbalee ci suñu bàmmeel ci laaj yoo xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na amul kenn lu koy faatu lu dul dinañ la laaj yooyu laaj kon maanaam question yi ñu war laaj ci biir bàmmeel sax mbokk yi yàlla dañu koo jox ba pare man rabbuka ma diinuka man nabiyuka ma kitaabuka ñeenti laaj yi moom la ñuy laaj ci biir bàmmeel bu doon examen yii la da nga naan question bi daa fuité di fuité wul yàlla dañu koo jox ndax mooy arrahman réponse yi nag mbokk yi ndax lu ñuy mokkal yóbbaale la wala dañuy bàyyi ba nga faatu ñu bind benn xaatim ngeganaayool la ko déedéet loolu ak dundin la doomu aadama bi di dund la man rabbuka saa soo taxawee di julli nga ni allahu akbar bi nga salfaat alhamdulillahi rabbil alamin kon as-salaa yuzakkiruka dala war di fàttali ni yow lii di ar rabb dinañ la ko laaj sa biir bàmmeel mu bokk ci laaj ñaan yi nga xamante yonente bi sallallahu alayhi wasallam dañu koy jàngal saa yi boo xëyee nga war ko di ko jàng njàng gi du jàng rek ngir mu lay musal mais dalay fàttali raditu billahi rabba wa bi islami diina wa bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam nasi yooyu dundin la mbokk yi moo tax yoon saasaam nee na li ñu war a ñaanal ki faatu mooy lan allahuma sabbit mantiqahu inda al masala yàlla na yàlla dëgëral laaj làmmiñam ci laaj bi ñu ko war a laaj kon foofu la examen bi ñu njëkk a amee mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na buñ la laajee laaj yi soo ko tontaw sa biir bàmmeel dinañ ko yaatal mu nekk rawdatan min riyadil janna malaaka bi ñu la gis nga sées wala ci biir safara moo nekkoon sa place ci safara boo tontul woon ci laaj yi tey nag remplacé remplacé nañ la ko ak sa tooguwaay bee ci biir aljanna foofu mooy ci nga jëm yàlla ñu ci yàlla defal mbokk yi ku tontuwul ci laaj yi nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na malaaka bi dina la dóor mbol de boo xam ne di nga bëtt suufi juróom-ñaar génnaat ngir li nga faussé réponse bi nga waroon répondre mbokk yi kon ñun ñii ci examen la ñu nekk comme ni nga xamante ni suñu ndongo yi ñu ngi ko nekk ci examen wala ñeneen ñu ngi koy xaar war jëm ci examen aqul ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله على إحسانه واشكر والشكر له على توفيقه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بقيت يالا في نار التخواي بتي نيجي وقتي examen bi nga xamante ni ñun ñëpp mu ngi xaar muy ñaareelu examen bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni bu ñu dekkeew ñun ñëpp muy lan tazula amul kenn koo xamante ni dina puus qadama abdin sa benn tànk di nga ko jékki hatta yusala an arba loolu dina laaj ñeenti laaj ba tey ñeenti laaj mu ngi ñëwaat mbokk yi bi ci njëkk mooy an umrihi fii ma afna sa dund ci kaw suuf yow yàlla dana laaj sa dund ci kaw suuf ana la nga ko jeexale woon la nga nekkoon ci kaw suuf wa an shababihi ci yàlla defoon nga dem ba atteindre âge jeunesse dina la laaj force bi ma la joxoon ci sa jeunesse ci fan nga ko orienté woon jaamu yàlla wala ci caaxaan yàlla dina la ko laaj wa an maalihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaq alal ji ma la dénkoon ana fan nga ko fàggoo woon ak ba nga fàggoo ba pare ci lan nga ko dépensé bu ci nekk yàlla dina la ko laaj laaj bu mujj bi nag mooy wa an ilmihi maada amila bihi bi nga xamuloon dara yàlla loo xamul du la ko jàppe waaye na nga gëstu ji waaye ba nga xamee li lii dafa dagan wala lii dafa xaraam ndax bàyyi woon nga li dagan ba nga ko xamee wala la xaraam ndax defoon nga la dagan ba nga ko xamee wala ndax bàyyi woon nga la xaraam ba nga ko xamee xam-xam boobu yépp yàlla dina la ko laaj mbokk yi ku wax examen wax joxe ay diplôme ndax da nga réussir wala réussir wala yàlla mu ni wa uridu ala rabbika saffan laqad jitumuna kama xalaqnakum awwala marra mu ni bis boobu kenn ku ci nekk di nga taxaw ñëw ci man benn par benn comme ni nga doon wàccee ci kaw suuf benn par benn ay seex sax bu ñuy gën a kaw suuf duñ ñëwandoo benn par benn ngay ñëw yàlla mu ni kenn ku ne di nga ñëw daagu ba sama kanam ma laaj la laaj di ma lay laaj sans intermédiaire mbokk ginnaaw laaj yi kenn ku ci nekk dinañ la jox sa téere képp koo xamante ne sa téere nangoo nga ko sa loxo ndeyjoor fa amma man uutiya kitaabuhu bi yaminihi fa yaqul képp ku nangoo sa téere sa loxo ndeyjoor li nga wax mooy haa umqruu kitaabiya inni danantu anni mulaaqin hisaabiya yàlla mu ne fa huwa fi ayshatin raadiya fi jannatin aaliya qutufuha daaniya kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyaamil xaaliya yow mi nangu sa loxo nday joor sa téere li ngay njëkk a sentir mooy nodd nañ ni man réussir naa wëlbati ko say mbokk ni kaay leen ma liir samay téere jëf ndax xam nga li ci nekk lu baax lay doon yàlla mu ne kooku noonu da ci aljana laa koy dugal yàlla nañ ci yàlla boole ci aljana ju gën a kawe yàlla nañ ci yàlla boole ngay lekk ci meññeent aljana ju la neex nag yàlla naan la kulu washrabu ani am bi ma aslaftum fil ayyaamil xaaliya mbokk yi nag ana ki nga xamante ne loxoom de càmmooñam la nangoo téere jëfam wa amma man utiya kitaabahu bi shimaali fa yaqulu ya laytani lam uuta kitaabiya wa lam adri ma xisaabiya ya laytaha kaanat alqaadiya ma agna anni maaliya halaka anni sultaaniya fan la yàlla mu jëg moom xuduuhu fa gullu tumma aljahima sallu wal iyaazu billah yàlla mu ne ñi nga xamante ne ñoom seen loxo càmmoñ nañ nangoo seen téere jëf ñoom li ñuy njëkk a wax mooy dañuy muulu seen bopp ak a neexoon ma bañ a ma bañ a xam ni ma nar a àtte ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na keroog taxawaay boobu di nga xool sa ndeyjoor doo fa fekk lu dul la nga jëf nga xool sa càmmoñ doo fa fekk lu dul la nga jëf nga xool sa kanam mu ne nga jàkkaarloog sa warana te foofu rek ngay jaar ci kaw siraat pour dugg bi aljanna wa in minkum illa waariduha mbokk yi yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni ñaan leen yàlla nag mu leen di musal ci sawara soosu donte sax da ngeen di jël benn xaritu tàndarma ngeen xar ko séddoo ko sa mbokk jullit nga am ci tuyaaba mu ne bu leen xeeb sax loolu ci tuyaaba ndax sawara si ngeen jàkkaar lool mbokk yi du ñu jeexal suñu xutba di wax ci examen loolu dañoo ñaanal suñu mbokk yee nekk ci Gaza yàlla fitna ga fa nekk te mu juddoo woon ci ab tooñ ñëpp xam ne ab tooñ la woon ci diggante Israël bu dañul di mës a tooñ suñu mbokk yooyu nekk ci Gaza ci Palestine tey jamono ji fitna moo fa nekk woo xamante ni liñ doon ñaan yàlla mooy mu fayal suñu mbokk yi fay googu mi ngi am mais dañuy ñaan yàlla ak giñ leen ameloon lañ leen ko delloo te ay wayam fa ndax loo xamante ni mu ngi toll ci ay pourcentage ci économie mondiale bu fare foofu foofu lu mu néew na julli war na faa ñaan jàmm di fa am ndax bu dégénéré woo ñun duñ ci mucc keneen duñ ci mucc yal na yàlla defal jàmm suñu dëkk bi def jàmm ci àdduna bi yëpp amul jullit bu war a taxaw ne nag sama yoon nekku ci loolu moom xeexi naar la wala histoire naar la gëstul la fa nekk boo gëstoo di nga xam lan mooy dëgg yoon saa salaam nee na boo xamee dëgg bi na nga musal sauver sa mbokk bi ñu tooñ ak kii tooñ ki ñu tooñ nga téye ko kay tooñ ne ko eh yaa ngi tooñ kii waaye kay tooñ nga ne ko yaa ngi tooñ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله